di ñaan yàlla lépp lu luñ ci jaamu tamit as lu bëri ak lu néew tamit yal nañ ko yàlla allah te ñu yàlla yal yàlla may ñu teew ko ay at yu bëree bëri di encourage tamit euh, ñi nga xamante ni aussi dañuy jékkool di woor di ñaan yàlla aussi yal nañ yàlla mais tamit suñ cër tamit àttan ka te mun ko woor incha allah ba cee am benn bor incha allah di jékkalu ñëpp ñoo xamante ni mos nañ leen tooñ di jéggalu tamit euh, population bi yëpp. parce que parfois doomu adamé dina togn te fekk du ko yëg te bakkar dafa sew te amul bu mag amul bu ndaw bakkar moom bakkar la rek di jégal tamit parfois du ñak ci liggéey bi am ño xam jëflante nañ fekk jëflante nañ ci lo xamante ni ko wala genre mel non di ci jégalu bu baax baax te ñu xamné tamit doomu adam doomu adam la rek matu yàlla rek mo mat te kep ko xamante aussi togn nañu ak lu ci mën ta nek tamit aussi ñu jéggal nañ ko inshallah di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen jàmm incha allah asalaamaaleykum alhamdulilahi rabi alalamin wasalatu wasalaamu ala ashraf al ambiya wal mursalin wa nuxayikum bi tahayati lislam wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di ziare cheikh moussa di baalu ñëpp ak di leen baal di leen ndokkeel si weeru koor bi di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa bi mu ñu may ñu ko fekkee ay déwéni déwén weer bi daaw heure bi am na ñu nga xamante ñi ngi woon fii tey nekk ñu fii ñu leen di ñaanal seen borom fi ñu nekk yàlla na gën fi ñu jóge di naan nañ ko woor ci jàmm yàlla nangul ñu ko di digal jaam yi nañ ci góor góorlu nekk naa weer bu nga xamante ni weeru profito la parce que lépp luy xeetu mbon xeetu seytaan yàlla da ngay tënk à lépp li nga xamante ni jaam bi da ko doon def ci lu baax bu ko mu nee dolli mu gën lu am solo la qiyaamul leyl yi sa yeneen bi mu ngi naan man sooma ramadan imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi képp ku nga xamante ni weer na weer wóor na weeru koor ci li mu ko waree mu dëgru ko imaan waxtisaaban yàlla borom bi subhaanahu wa taala dina ko jégal ay bakkaaram yi nga xamante ni yu ndaw la loolu nekk na lu nga xamante ni lu jullit bi war a profité la parce que lépp lu baax ci lu nga xamante ni yow boo ko defee yow yaa koy jëriñoo waroo xaar kenn njëkk la si lépp luñ doon def ci lu baax lañ ci di ñaax mbokk yi daal di leen baal ak nga xam ni liggéey bi ñuy ñaax mbokk yi tamit lépp luñ ci gis lu xaw a tuuti wala lu xaw a manqué ci liggéey bi wala ci suñu côté ñu ngi leen di jéggal di leen jéggal nga xam ni nit moo motul. nit day fàtte moo tax ñu tuddee ko insaan suñu yoon insaan li kathrat nisyaani yi nit day fàtte di baalu ñëpp ak daal di leen ñaax si jaam yàlla bi bu wër a wér jazakumullah di waxtaan aussi euh, di wax sa mbokk séeréer ak ñi nga xamante ni dañoo sant ba tàmm nañ weer ko bu ñëwee nag ñu naan ay estomac bi commencé naa yëngu dama amee ay ulcère dama amee ay genre mi noonu wallahi weer ko nekk na weer boo xamante weer bu ñu war a mën a profité la parce que day faj te lu muy faj ci doomu aadama dafa bëri eh, leen lu ci topp aussi tamit weeru koor da loo xamante ni ëllëg da lay moo tax lu ci jara def eh, lu jara eh, fonk la luñ jara profité la aussi pour ñu mun cee jaamu yàlla bu baax parce que boo xoolee année bi yëpp yaa ngi ci sa nafsu yaa ngi lekk mu la neexee yaa ngi naan mu neexee noo bëggee nekk ak sa soxna yaa ngi koy moom xam nga parfois aussi yàlla di xool yow sa imaan fu mu toll bëgg laafi sa yaram weeru koor dafa mel ni antibiotique day nettoyer sa xol nettoyer sa yaram lépp lu ci nekk incha allah mu faxas ko ci dafa am benn mag bu doon wax tamit euh, ñaar yi moo jaraf profité ci kaw àdduna gannaaw bi nga nekkee jullit boo xamante yaa ngi jaamu yàlla mooy weeru koor ak waajur lu tax mu wax ko mooy waajur bu xorom sedd rek macha allah yow sa lépp baax na boo xoolee firaw na li ko mayoon tamit euh, sens ci benn côté mooy weer ak gudd fan dara ñu mu amoon dafa respecté woon ay waajuram ak lu mu nekk kàccoor kàccoor yëpp dafa respecté woon waajuram nga xool tey jii même bu leen doon jox ñam da doon sukk jël ñam bi tekk ci bopp bi jox leen koy lekk kon comme que moom mi nga xamante ni daawoon góorgóorlu ba yàlla alak wax ma la nag yow mi nga xamante ni da ngay góorgóorlu lu jaamu yàlla normal comme war nga mën a xam war nga mën a am ay remise yu bëri ci côté aduna ak àllaaxira incha allah parce que waajur yooyu ñoom dañu yàlla dénk weer koor nekk na loo xamante ni si ëllëg dalay ram day téye sa loxo ne yàlla waa ji téyel ma ko yàlla ñu mu nekk lu tax mu ne waa ji daf ma doon woor mu ma waroon wooree te guddi da doon jug di la sàbbaal gën a xam lu mu doon def mais yàlla da koy que moom mooy toog naan man maay sa avocat te maa lay la ba dugal la àjjana incha allah yi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal dara weer boo xamante ni xam nga ndax diwén ci fekkee yow na mel ni ci weeru koor bi dala yàlla di jël mooy profitool si profitool boo xamante ni yow di nga si jaamu yàlla na war a jaamu yàlla incha allah te nga bañ a tricher parce que weeru koor <laughs> kenn mënu cee tricher bu fekkee weeru koor bu jaar yoon rek yow di nga wéet ak sa bi mu nekk bu la nga lekk kenn dara gis mais yàlla dara gis li tax yàlla dinaan ittaqwa ma kuntum parce que loolu noonu moo tax xam nga tey jii nit war na mën a gën a góorgóorlu bu baax a baax ci boppam di ñaan yàlla aussi yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla aar yàlla nañu yàlla defal tawféex weñ yu wér ak sutura ñi nekk ci hôpitaux yi bëggoon woor yàlla natt leen ba ba ñu nekk ci lu mel ni tawat di ñaan yàlla yàlla yàlla fëgg seen nopp ñu jub ñu woor ci weer koor bi incha allah te lépp luñ ci jaamu mu bëri mu néew yàlla ko yàlla nangu incha allah asalaamaaleykum yéen waa Sénégal اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقد